نحن في الندوة العالمية للشباب الإسلامي وامي اليوم نزور جامعة طوبة هذه الجامعة mbokk mi doon wax mooy Mouhamed Fathi mu jiite bureau bi nga xam ne ñoom la ñuy wax assemblée mondiale de la jeunesse musulmane ñu ci koy anglais ñu koy wax wami World Assemblée Muslim euh, Youth donc muy kuréel boo xam ni euh, buuru fay buuru màkk bi ñu wax euh, Faysal moo ko initié woon depuis 1972 ci réewum Arabie Saoudite euh, waa mi aussi def nañ ne ñaar fukk ak ñeent fii ci diwaanu Sénégal <coughs> comme ni nga ko waxee dañuy liggéey ci wàllu yu bëri di liggéey ci wàllu jàng ak jàngale di liggéey ci wàllu orphelinat am na mat mille et quelques orphelins yoo xam ne chaque mois de am nañu ndimbali ñu jox. liggéey di tabax ay jàkka tabax ay école tabax ay juma euh, tabax ay centre de santé <clears throat> nee na bëgg na loolu bi ñëw gi ñëw fii ci Touba ndax lu jiitu fi ñëw tey suba dañ xëy demoon Poroxaan siyaara ji daara ju mag jooju nga xam ni turandoo maam Jaara ñoo fa ne nee na bi mu fa demee xolam sedd na lool ndax gis na ne xale yu ndaw ñoo fa nekk te ñu ci bëri mokk nañ alxuraan ndax tar nañ ko ci kanam ñenn ñi nee na moom am na ay cadeau yu mu leen jox mais après tabaski dina wut ay wàllu garab parce que xamal nañ ko ne am na poste de santé foofu pour xale yi dina wut ay garab ak i xéewal yóbbu ko fa nee na aussi fas yéene na euh, am ndaje léegi ak soxna Bali ci fondation bi nga xam ne taxawal nañ ko bu ko defee ñu jàngat yéen ndimbalante moom mën a am seen diggante ñoom Nadwa ak fondation Soxna Baye bi. nee na aussi ñu ngi rafetlu taxawaayu Cheikh mu taxaa ndax fii ñu taxaw tey di université. boo xam ni waxuma université kese mais njàngum suuf ba ci gën a suufee ak njàng ma gën a kawee lépp fi am donc lii du université complexe la nee na aussi lii dafay bokk ci lii su mën a sàmm xale yi non seulement sàmm leen mais aar leen mais dimbal leen ci am ak xarañ seenu njàng téeg na ni aussi waa ISRA ñu fi def benn bibliothèque bu mag boo xam ne bu moderne lay doon bu ultra moderne nee na xoolum sedd na ci visite lool ñu ngi gërëm mbokk journaliste yi nga xam ne suba ñu ngi ànd ak ñun di gërëm waa ISRA ci dalal gu yaatu gu ñu dalal di gërëm di beral nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha ci li nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal di ko def ci àddina di ko def ci jullit yi lépp rek ngir servir l'humanisme nee na ñoom daal waa Nadwa ñu ngi ubbi seen bunt ak seen xool ak seen bureau ngir képp koo xam ne taxaw na di doomu Sénégal ñu jàppalante yow nee na fii ci Touba am na lu ñu fi jotoon def def nañ ko ak Kaolack def nañ ko Louga def ko ci région yu bëri noonu lañ ko di ko def ndax Nadwa boo xam ne dafa ubbi ay buntam ci képp xam ne bëgg ngaa dimbalante ci Touba nee na mi ngi <coughs> mi nga xam ne moom la ko sëñ bi booleel moo ko teeru moo ko dalal moo ko dund visite bi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci Sénégal def jàmm ci réew mi président Macky Sall it effort yi muy def pour éducation di ko def pour kër diine yi yàlla gën koy jàppale gën ko taxaw asalaamaaleykum wa rahmatullah الذي معي من الندوة نقدم لكم شكرنا الجزيل على هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته